kenn du liggéeyal yàlla di perte. mu ne kenn du liggéeyal yàlla di perte. ku liggéeyal yàlla yàlla fay na. ku liggéeyal yàlla yàlla fay na. baay boo ko liggéeyee lu toll ni ker. mu ne baay boo ko liggéeyee lu toll ni ker. moom guddi la lay fayee. moom amul fu mu dalee amul fu mu yem. guddi moom amul fu kër ga dalee amul fu mu yem. ana naaj. ana naaj. amul. loolu la fay ak yàlla yem. mu ne noonu te du am fu mu moo tax tëb leen. mu ne moo tax nañ tëb. dégg yi dégg yi. tëb escalier yi. tëb escalier yi. lan. dégg yi lan. su man su man. su doon man bu nekk du nekk moom. su doon man bu nekk du mus a nekk moom. dem leen bu mu ne nañ dem te buñ gëstoo. <laughs> li ngeen soxla yëpp mu ngi ci seen kanam néew ci seen gannaaw de. li soxla mu ne mu li ci seen gannaaw yëpp tarbiya la. mu ne li ci seen gannaaw yëpp tarbiya la. li ci digg bi tarxiya la. li ci digg bi tarxiya la. waaye li ci kanam jamaal la. waaye li ci kanam jamaal la. du jalaal mu ne du jalaal mu ne loolu jamaal la yàlla du maye mukk nangu mu ne yàlla moom du maye mukk nangu ëmb la rek mu ne ëmb la bisa ngi ñëw rek mu imbeeku bisa ngi ñëw rek ëmb bi imbeeku du am fu dalee du am fu dalee du am fu yem moo tax taalibe mu ne moo tax taalibe fokk mu egg fa saaba yi mu ne fokk mu yegg fa saaba yi eggoon ak yonent bi dañ daan sonn mu ne julli bi dañ daan sonn ba ñëw ci yonent bi salaa salaam sukk ba ñëw ci yonent bi salaa salaam sukk ne ko yaa rasulullah ne ko yaa rasulullah wax nañ ne fii ci màkka wax nañ ne fii ci màkka ñun ñoo fi gën a ñàkk ñun ñoo fi gën a ñàkk yonent bi salaa salaam noppi ba mu yàgg mu muñ muñam mu muñ muñam mu rafet mu ak taar bi ak leer bi ak taar ba ak leer ga yëpp jaam ñëpp man na mu ne lenn rek laa leen di xalaatal mu ne lenn rek laa leen di xalaatal mooy beew mooy beew jamono gi ñëw jamono gi nii di ñëw beew rek laa leen ragal beew rek laa leen ragal mu ne xare ngeen mu ne xare ngeen xare yi gën a métti xare yi gën a métti waaye maa ngi leen di seedeel ne am na beneen xare bu des. mu ne waaye maa ngi leen di seedeel ne am na beneen xare bu des. saaba yëpp sukkaat ci suuf dóor seen jéey. saaba yëpp sukkaat ci suuf dóor seen jéey. ah yaa rasulallah. ne ko ah yaa rasulallah. xare mën naa gën a métti Uhud. xare mën naa gën a métti Uhud. mën naa gën a métti xandax. mën naa gën a métti xandax. ah kon de beneen xare bii ñëw xaw ma fu ñu jëm. kon de xaw ma beneen xare bii ñëw te métti xaw ma fu ñu jëm. sang bi noppi ba mu yàgg. sang bi noppi ba bi des mooy seen bakkan yi. xare bi des mooy bakkan yi. nafs bi mu ne gis naa man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne gis naa man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ngi ñëw. jamono ngi ñëw. da nga nekk buuri jamono. da nga nekk buuri jamono. danañ leen solal koromp buur. danañ leen solal koromp buur. ngeen nekk ngeen nekk buuri jamono. waaye xoolal. ne waaye xoolal. soo taxawee màkka tey. soo taxawee màkka tey. nga xam ne lu yonent bi waxoon yëpp am na. nga xam ne lu yonent bi waxoon yëpp am na. nga taxaw Medina. nga taxaw Medinatul Munawara. nga xam ne lu yonent bi waxoon yëpp am na. nga xam ne lu yonent bi sallallahu waxoon yëpp am na. ñëpp nekk nañ buri jamono. ñëpp nekk nañ buri jamono. sol nañ korompe or. sol nañ korompe or. fi yonent yi tolloon sallallahu alayhi wasallam yonent yi tolloon sallallahu alayhi wasallam ak saabaam yi taalibe dañuy dem ba toll foofu taalibe yi dañuy dem ba toll foofu léeg nga siyaare sëriñ bi sax léeg-léeg nga siyaare sëriñ bi sax dem bay génn dem bay génn ne ko am na lu ma la fàtte wax ne ko am na lu ma la wax <laughs> xam nga comme déet xaw ma ndax seet xam nga comme dégg na sotti nu mu gën a gaawee nu mu gën a gaawee bu ko defee sëriñ bi ree rek ne la ah, yow da may poñe léegi bu ko defee sëriñ bi ree ne la ah yow da may poñe léegi fekk dëgg la de fekk dëgg la de nit ki nit ki kim yaakaar rek lay wax soxlaam ci kim yaakaar rek lay wax soxlaam parce que saaba yi buñ sonnaan dañuy dem ci saaba ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sukk ci kanamam. ndax saaba yi buñ sonnaan dañuy def ni ñu def ñëw sukk ci kanamam yonent bi sallallahu alayhi mu digal leen. mu digal leen. ñaanal leen yàlla. ñaanal leen yàlla ba pare ñaax leen. ba pare nag ñaax leen muñ loo leen. pare nag muñ loo eh, ndax. ndax. te ñi nga xam ne mooy yëpp yi nga xam ne ñoo sonaloon yonent bi sallallahu alayhi ci Màkka. yéefar yi nga xam ne ñoo sonaloon yonent bi sallallahu alayhi ci Makka. su ma dendeeg ñoom aj. mu ne bu dendeeg ñoom aj. damay gis seen sët yi maanaam seen sët yi ni ñuy yuuxoo ñoom sët yi nga xam ne ñooy sët yi yéefar yi. day gis seen sët yi sët yi yéefar yi nga xam ne ñoo sonaloon yonent bi ci Makka. dañuy yuuxu ca kaw. dañuy yuuxu ca kaw. man laaj leen lan moo tax bu ngeen ñëwee ci rawdu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek di jooy di yuuxu tax bu ngeen ñëwee yonent bi sallallahu alayhi rek di yuuxu ca kaw. ñu wax man ñu tontu ma ci araab ne ma. ñu tontu ko ci arab ne ko. li ñu métti te naqari ci suñu xol yi ba léegi te duñ ko fàtte. li ñu métti te naqari ñu suñu xol yi ba léegi te duñ ko fàtte. mooy suñ maam yi nga xam ne ñoo génnee woon yonent bi yàlla bu tedd bi ci Màkka. mooy suñ maam yi ñàkk xam-xam yi daf yooyu génnee woon bu tedd bi ci Màkka. ba mu ñëw sanc Medina. ba ñëw sanc Medina. ba léegi buñ sukkee ci kanamam. ba léegi buñ sukkee ci kanamam. loolu moo ñu naqari. loolu moo ñuy naqare day mel ne dara moo tax mu ne moo tax ku yàlla dimbale ba nga nekk jullit ku yàlla dimbale ba nga nekk jullit gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn ëppalewut la kenn ëppalewut la ndax diine yonent bi ndax diine yonent bi mooy diine ji gën mooy diine ji gën mooy diine ji raw mooy diine ji raw mooy diine ji njëkk mooy diine ji njëkk te mooy diine ji mujj te mooy diine ji mujj danañ dem ci jamono ba nga xam ne. danañ dem ci jamono ba nga xam ne. français dafay jeex. français dafay jeex langue yëpp dafay jeex ba mu des alxuraan. langue yëpp dafay jeex ba mu des alxuraan. su boobaa. ne su boobaa danañ dem ba nga xam ne université alxuraan mooy am. université alxuraan mooy am. beneen université du am ci kaw suuf. beneen université du am ci kaw suuf. lu dul université alxuraan. lu dul université alxuraan. bu boobaa ca lam commencé woon rek. bu boobaa ca lam commencé woon. ca lay delluwaat mujjee ko. ca lay delluwaat mujjee ko. kon sant bu baax bi nga xamee ne mu ne kon sant yàlla bu baax bi nga xamee ne jullit lañ jullit lañ bëgg na yonent bi la salaam bëgg na yonent bi salaa salaam ak i saabaam sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax maa ngi wax benn taarix bi ma demee ci kullu ziar mu benn taarix bi demee ci kullu ziar ci ci uut di ko wax di ko wax Babacar nga xam ne moom laa àndaloon Babacar mii nga xam ne moom la àndaloon bi ñu génnee bilaa yonent bi sallallahu alayhi def ko benn cadre. bi ñu génnee bilaa yonent bi sallallahu alayhi def ko benn cadre. génne saaba yi. génne saaba yi génne or bi nga xam ne moom lañ tegaloon saaba yi. muy yéefari génne or bi nga xam ne moom lañ tegaloon saaba yi muy yéefari. te ñu gañee leen ko. te gañee leen ko. loolu bi ma doon wax Babacar ma ne ko. li muy wax Babacar def na ko. lii yëpp li ci yonent bi di jàngale. lii yëpp li ci yonent bi di jàngale. mooy ndigal. mooy maanaam jëfee ndigal. maanaam bi yonent defee plan. bi yonent defee plan. ak jullit yi. ak jullit yi muy saaba mi ànd ak moom. muy saaba mi ànd ak moom. ne bu leen wàcc. ne leen bu leen wàcc. xunt bi. xunt bi na ngeen ci taxaw. na ngeen ci taxaw. bu leen wàcc mukk. bu leen wàcc mukk. bi ñu gisatul yonent bi salaa salaam rek bi leen yonent bi wanee gannaaw. bi leen yonent bi wanee gannaaw. eefar yi ñëw. eefar yi ñëw jël seen or bi. jël seen or bi ak seen dinaar yi maanaam xaalis bi. ak seen dinaar yi maanaam ci suuf. dugal ko piégé leen. ba pare dem dugg ci benn xunt. ba pare dem dugg ci benn xunt. ak seen i ngànnaay. ak seen i ngànnaay. di leen rëbb. di leen rëbb. bu ñu ko defee julli rek incité. bi ñu ko defee julli di gis or bi. gis or bi rek dal dina ñun daal. gis or bi daal dina ñun daal. ñun ni ñàkkee. <laughs> ñu jur or bu mel nii ñu jur or bu mel nii. ak xaalis bu toll nii. ak xaalis bu toll nii. te wàccuñ tibb ko. te wàccuñ tibb ko. te ñoo dem jël ko. te ñoo dem jël ko. ñu werante. am na doom yi di buub xaalis beeg or bi. di buub xaalis beeg or bi. xam sa ci la bokk. xam sa ci la or beeg xaalis bi. fiñ sëgg di buub or beeg xaalis bi. booba yéefar yi ñoo leen pièce. boobu yéefar yi ñoo leen la yu yéefar yi ñëw bombardé leen. boobu lañ ñëw wër leen bombardé leen. moo tax. moo tax. boo demee Uhud. boo demee Uhud. foofu lañ tëdd. jàmbaar yu bari. jàmbaar yi bari fa tëdd. ñu fa tëdd. rawatina am sax. rawatina am sax maa ngi waxtaan rek ci biir Uhud ne. ñu ngi waxtaan ci biir Uhud ne. di naaj di tàng tàng maa ngi waxtaan ak Babacar di naaj di tàng waxtaan ak Babacar. ko lii yëpp. naan ko lii yëpp li muy wane fii rek. li muy wane fii rek. mooy jëfee ndigal. mooy defal nga def. defal nga def. bàyyi nga bàyyi. santaane bi yàlla bi. santaane bi yàlla bi. te yonent bi. te yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. tere. bàyyi ko lu mu santaane lu santaane def ko def ko ndax ci yàlla la bàyyi ko ndax ci yàlla la bàyyi ko yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Ibrahima bi mu àndeek soxnaam bi mu àndeek soxnaam ak doomam Ismaahila ak doomam dañu ñëw dañoo ñëw ci benn àll kerte deñ ci benn àll kerte deñ mu wàcce fa soxna si wàcce fa doom ji mu wàccee fa soxna si wàccee fa doom ji dem bay wane gannaaw. dem bay wane gannaaw. soxnaam bi oo ko. soxnaam bi oo ko. ne ko waaw sang bi. ne ko waaw sang bi. damay laaj. damay laaj. fii nga ma nga ñu wàccee maag sama doom. fii nga ñu wàccee maag sama doom. sa sa ci sa coobare bopp la. ci sa coobare bopp la wala ci sa ndigali borom. wala ci sa ndigalu borom. mu ne ko ci suma ndigali borom la. mu ko ci sama ndigalu borom la. mu ko yow doo def ci lu duur sa ndigali borom. mu ne ko yow doo def ci lu duur sa ndigalu moo tax Ibrahima dafa am digal ci boromam. moo tax Ibrahima dafa am ndigal ci boromam. soxnaam Hajara dafa am ndigali borom këram. soxnaam Hajara am ndigalu borom këram. Ismaayila tam am ndigali am ndigalu waajuram. muy Ibrahima. muy Ibrahima. kon yal yàlla dimbale njaboot bi. kon yal na yàlla dimbale ñun njaboot bi. zaahir ak ci baatin. zaahir ak ci baatin. yal na yàlla jotal leen seen mboolem càkkuteef. yal na yàlla jotal ñu suñu mboolem càkkuteef. amiin jàmm nañ ci jàmm. jàmm nañ ci jàmm. jàmmawaat ci jàmm. jàmmawaat ci jàmm. fekkee gàmm yu bari yal nañ fekkee gàmm yu bari amiin. te ànd ak yokkute ak yokkute. ak wér ak wér. ak mën ak mën. ak talko ak talko. ak barkeel ak barkeel. ak wërsëg ak wërsëg. ak ubbee ak ubbee. ak jàmm ak jàmm. yal na yàlla barkeel. yal na yàlla barkeel amiin. barkeel njaboot bi barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu anhu barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu anhu barke Mawlana Cheikh Ibrahima Fall barke Mawlana Cheikh Ibrahima Fall barke weer wi barke weer wi barke mbootam weer wi barke mbootam weer wi barke ci kiñ ko wàccee barke ci kiñ ko wàccee ak li tax ñu wàccee ko ak li tax ñu wàccee ko amiin barke pay bi amiin barke mbootam pay bi barke mbootam pay bi barke mbootam xadara bi barke mbootam xadara bi barke jotaay bi barke jotaay bi amiin barke mbootam jotaay bi amiin barke allahumma salli ala sayyidina amiin Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi ci barxama ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa